maintenant tous les lundis dañuy euh, ñëw ci actualité de la semaine. ak li gën a bës ci weekend bi. Mhm. Euh, comme ni ñu koy defee tout le temps euh, mhm. c' est que actualité bi bari na trop. Mhm. mais dañ ciy tënk dañ cay coof bi ñuy jël nag bi nga xam ne moom mooy actualité phare bu ñu doon wax tendance numéro une. boobu lañ koy jox muy affaire du du ak la fille bi nga xam ne mu ngi nekk foofu ci extérieur tey Adama moo daal di koy relaté. dama ñëw ci affaire sextape bi ndax un mois ci ginnaaw. def na émission ci biir Seneweb. donc maa ko dalaloon d' ailleurs Euh, mu doon dànkaafu sénégalais ci li war a am mën a am demain. Mhm. Euh, tey bu amee yëpp ñu xam ne erreur la et léegi mhm. màgg na il est très mature. Mhm. donc bi yëf yi amee rek donc vidéo boobu lañ daal di jëlaat indiwaat ko mu nekk lu viral mu nekk une réponse boo xamante ni. Euh, sénégalais yëpp li ñu doon laajte mooy est ce que Doudou xamul doon am dans un mois. dafa préparé woon parce que. maa ngi dégg sax koy wax naan j'ai un mental de fer. ak lu mën a xam ne jot nañ ko xam ne ñooy ay famem que affaire bi ñoom yëkk nañu dina génn un mois ci ginnaaw moo tax ñu préparé ko c'est vrai que moment difficile la actuellement pour moom euh, parce que jamono yi euh, il est privé de sortir ah, beaucoup ci réseau yi ak ci yu bëree bëri yu mel juste rek pour euh, daal di koy fankal loolu juste mm. rek pour daal koy protéger ci li nga xam ne moo nekk di am mm-hmm. actuellement mu nekk vidéo boo xamante ne aussi mm-hmm. DJ Yves dafa dafa dafa indi polémique bu bëri ci bi Sénégal parce que les Sénégalais événement muy tey euh, Sénégal am na lu bari lu ñu war a mën a fësal ci lu rafet que lu ci ñaaw parce que euh, lu ci bari réaction yi nga xam ne célébrité yi def nañ ko mm-hmm. mooy euh, pourquoi tey ñu war a jaay image Sénégal ci image bi pourquoi ñu bu yàqu bu bon bi mm-hmm. ba tey ki nekk ci biti bëgg xam li xew Sénégal mm-hmm. su suñu internet bi lay dugg ci suñu site internet lay dugg et que bu duggee yam ci loolu danaan Sénégal lu bon rek moo fi am lu baax rek amu fi waaw man damay wax rek pour réew wax pour éducation surtout xale yu jigéen yi mhm. wax surtout pour ndaw ñi ndaw ñi nga xam ni mhm. dañu war a am nuñ taxawee ndax ñoom ñooy doon mag ëllëg te dara ëppul personal ci àddina mhm. respecté sa cër respecté ki ngay defal même bu lay takk di la may milliard man amuloo maqaama may filmer sama bopp vraiment benn góor man artiste man Fatou Laobé mii artiste la am na ñu may woo ñoo xamante ni xawma leen mais ku ma ci woo appel vidéo koo mën a doon xaw ma la. Mhm. dama lay coupé. Mhm. envoyé le message na la yaay kan. Mhm. lan moo tax nga di ma woo appel vidéo. dama lay menacé bu ëllëgee doo ko def. parce que mënu ma ni kenn du ma woo mais ku may woo bàyyi na message wala nga woo ma. appel normal. man sequma kenn appel vidéo. mais na jigéen ñi def noonu. Adama moom wax dëgg yàlla juum na juum na. te comme nangu na ne juum na. nit ku nekk da ngay juum. juum te moom yàlla rek moo ko dul def. comme mi nga jéem a trouvé naka lay def. ba du am xaawante te du am naka su du noonu dañ ko war may beneen change ndax nit dëgg ci lenn pare nga génn nga ne ah man ka juum naa ndax lii nangul samay samay àndaale nanguñ ko samay mbokk nanguñ ko sama waajur nangu ko mhm. ku ma xam sax nanguwuloo lii mhm. nga del deltu ginnaaw mhm. pour jéem a xool yoon bu baax bi loolu yàlla sax dafa ne ku tuub ma jéggal la soo ci dul dellu mais ana tamit bañ koo def bañ koo def dañ waxante dëgg parce que Youssou ku ko deful kenn du la génne kenn du la génne. Mhm. Youssou kenn def la ko. parce que ko génne di ko envoyé Zeyna kenn du la ko def. Mhm. ndax doo ko def. Mhm. man mii aussi keneen noonu. surtout dañu war a bàyyi suñu xel ci loolu. parce que góor des fois day dugg ñëw santage la. wax la loo xam ne du ko def. dig la loo xam ne du ko def. fekk yow loo xamante ni li muy wax. yàgg moom la rek. waaye du génn ci biti. Mhm. Mhm. kon bul am ci moom confiance man même boo dee sama jëkkër. Mhm. takk ma ci faratas yàlla ak sunnas Muhammad def ci man ay milliards. tub naa ay millions de. boo yaakaaree ma foto sama awra man. di la ko yónnee foo mën na ne. boo nga gas suuf dugg ci. parce que man du ma fay sama awra. personnalité jigéen ñi. mooy ay weenam. mooy awraam. dañu waxante dëgg. xaw. am na solo. alors nag dama koy jéggalu di ko baalu àq. di ko wax ni ko waxuma pour moom. Mhm. waxuma pour keneen waxuma mhm. pour keneen. Mhm. mais ñun sénégalais yi ñoo war a xool suñu ndax. da ngay jàngale parce que porteuse de da ngay jàngale damay jàllale message boo xam ni. dama ni. ku ko defut. kenn du la ko wax. nañu bàyyi xel ci ay vidéo koo mën a doon duma la vidéo di la def mais. jamais de la vie bul ma la intéressé. jëlal ci mi ñëw. ñu jàkkaarloo. boo ma intéressé. ma fekk la fa nga ne. lu dëgg. sutura yàgg na ci réew mi. te kenn génnut. dëgg la. mais ana man ana yow ma lay yónnee samay mhm. awra mais boo mu fasee ëllëg na def. mu doy waar ayca alors euh, ñu ñu ñu ñu jeexal aussi ah, ak euh, bu ngóor bi aussi. après du du euh, j'ai eu beaucoup de peine ah bi ma gisee parce que dama dañu leen invité fii nii. Mm. ñu ñëw toj plateau bi. Mhm. nekk ay boy yu bien xam nga. Mhm. fën ba ñëw ba ba newoon sax dañu bëgg ñu utal leen ay jours yoo xam ne ñu ñëw fi di perturber plateau bi. ndeysaan comme ni ñu ko xamee ci loolu. ndeysaan et puis xale bëgg. voilà te dañ donc voilà mu ngi noonu ah. Zeyna Ngor aussi maa ngi gis benn commentaire ñu naan de vrais amis. de vrais ah. amis xam <laughs> nga Sénégal aussi. bu dara amee li ñu jéem a xool duñ koy fajee. déedéet mais dañ ciy dañ ciy boole ay ruube. <laughs> ayca. góor ah góor la ñuy jeexal actuellement parce que hmm. sànq euh, ba tey donc ñu ngi jot vidéo yi de partout. Hmm. donc partage mu ngi ñëw de partout. Hmm. moom it je pense que vidéo am gis nañ ko ñu ci bari gis nañ ko buñ ko gisul. Euh, vidéo la boo xamante ni moom it da doon def appel vidéo. ci appel vidéo bi donc mu ci masturbé wu. ay te ba pare il était nu. Ah, donc loolu moo nekk actuellement di dox ci internet bi. donc. mu nekk loo xamante ne aussi dafa surprendre sénégalais yi. parce que euh, dañuy wax duudu une semaine. même pas deux semaines waaye euh, ñu ñëw ci euh, affaire ngóor bi mu nekk quelque chose boo xam ne dañu déplorer parce que xale yi sénégalais yi dañu leen bëgg déjà. ñu ngi bëggal sénégalais yi. Sénégal nga bëgg a toj nag Sénégal mu ngi bëgg a toj. a toj waaw mais Zeyna mm-hmm. na lu xale yi xewal de bës bi. Mm-hmm. jaral na leen lépp de. Mm-hmm. bës bi tam. mën naa doon programme mais d'après d'après li ma dégg mooy téléphone lañ ko dégg. iPhone 12 programmation rek la mën na nekk. ndax bëgg ñu suivre la dégg la. parce que Sénégal actuellement mel ni fi mu nekk sa bopp yaramu neen. jeunes yi fi mu nekk nii. ñu suivre la ba nga suivre sa bopp. film non non non non loolu loolu. loolu non non. piège la loolu loolu loolu du kii. d'accord ñu bàyyi Zeyna ay gal yi comme ça ñu jeexal foofu. donc fi ñu tënk parce que lu ñu gën a lu ñu gën a mhm. mooy wax naa ko sànq. bi mhm. affaire Doudou bi amee célébrité yu bari ah, dañu dañu def ay message de soutien. moom góor bokk na ci ñi nga xam ne réseau sa ginnaaw parce que bi affaire yi amee jël na photo Doudou. daal di koy publier ci Instagram bind ci je suis fier de toi mon mhm. frère. noonu tax bi affaire bi amaatee. affaire bi nekk problème ak question ci sénégalais yi. di wax ni est-ce que euh, ngóor deful exprès euh, vidéo vidéo bi dugg parce que dafa doon euh, nangul li xew ci Doudou ba mu fier ci moom donc c'était question yoo xamante ne on se la pose mhm. dinañ dinañ dinañ dëkk euh, suñu micro mhm. euh, ki ah nga xam ne moom mooy Ngor ak Doudou parce que nettali ci ci làmmiñu borom la ñu gën a dàqee mais quoi qu'il en soit nekk na yoo xamante ni vraiment on déplore mhm. déploré nañ ko partage yu nu mel ni déploré nañ ko et je pense que nguur gi mu ngi nekk actuellement di liggéey pour jël ci ay sanctions yu sévères parce que je pense que lii ku mu dal ci victime moi je conseille nga dem saisir la justice ba la ci yoon may nga xam ne yoon politique mais comme ni maman Fatou la bi waxoon léegi nañu def très très attention parce que léegi dañu toll ci jamono joo boo xamante ni sa loxo bi sax waroo ko wóolu. Mm-hmm. li ma gis ci ñaari vidéo yi jigéen ñoo leen ko def. et les femmes aussi. ñan ci nan lañ war a am confiance ci ñoom. Mm-hmm. bon parce que sa copain bu amee confiance ci yow bay dafa yow appel jëkkër am confiance ci yow bay dafa appel vidéo. mi ngi noonu am na ci yow confiance. Mm-hmm. donc je vois léegi dinañ dem ci jamono jo boo xamante ni benn góor benn góor du ñemeeti jigéen et que bu boobaa ñun ñoo koy teg suñu bopp. benn jigéen tam du wóolooti góor du wóolooti bu njëkk lañ doon wax. léegi vidéo. bu njëkk ba audio lañ doon wax léegi vidéo mbay loo ci bëggoon yokk ñu tëjee ko. da nga wax léegi wax rek laa kii parce que buzz loolu. buzz di wat loolu moom. ma ni mun na am. waxuma loolu la mun na am. waaw que parce que après après. su mm. affaire bi génnee. Mm. ngay dool ngay ngay. ngay doyal surtout say mbokk ak yooyu. Ah, waaw kay surtout say ah, mbokk. ëllëg sa jabar sa doom bu juddoo parce que il a été victime de ça xam na li si nekk ah, la pression familiale déjà. da ngay rus. c'est c'est catastrophique. da ngay rus c'est catastrophique donc ñu ngi ñaan mm-hmm. daal vraiment ñu ñaan sénégalais yëpp donc mu nekk yoo xamante ni buñ ko fi gisati daal. on a besoin gis lu rafet li nit ñuy def. Cheikh mm-hmm. Alassane Sène barki démb la fi def social. Euh, mm-hmm. Cheikh Mouhamed Abdallah Thiam ñu ci bari ñu ngi def social def lu baax ci réew mi. Yves j'aurais préféré ñuy wane loolu. c'est très important parce que xale yi bëgg nañ repère affaire bëgg nañ gis. Ah, ku nekk fii am nga sa vie privée boo xamante ne bëggoo kenn ku la ko xamal. mais dafa may ñoo xamante ne ay nit ñu seen xel yi ñaaw. Mhm. xamante ne bëgguñu gis lu baax lu ñaaw rek lañ gis. et que sénégalais aussi pour rappel. vidéo yi Adama da koy siiwal. Mhm. mais dafay tas na ba pare. Mhm. moom mooy mujjee jot. wax na ko nee na man génn na sànq di ne man da maa yàpp rek am na vidéo boo xam gis naa ko muy daw te man waxaguma ci mais man su ma ci waxoon rek <laughs> ñu ne maa ko maa ko génne noonu lay demee <laughs> <laughs> d'accord alors on maintenant avec euh, notre euh, Fatou Laobé international